koy ginnaaw bu ma nuyoo euh, ñëpp ñi ñuy seetaan ak ñi déglu mooy euh, rafetlu wuñ ndaxte Sénégal euh, ñëpp dañ ko jagle woon dëkku démocratie ak dëkku liberté léegi nga xam ne nii moom la ñuy gis ne régime président Macky Sall ni muy doxalee dafa faagaagal démocratie faagaagal liberté yi nga xam ne nii Sénégal yi dañ ko yàgg a xeex Ousmane Sonko convoqué nañ ko moom mi ngi dem wuyu ji dañ ko war a bàyyi mu wuyu ji dans des conditions yi nga xam ne nii moom moo dal xelam mais kenn amul droit ne ko fii ngay jaar wala doo jaar fii parce que loolu eh, c'est le privé de ses droits les plus fondamentaux c'est la raison pour laquelle eh, nous avons dénoncé ça dès le matin en disant que nañ ko bàyyi mu jaar yoon bu mu war a jaar dem wuyu ju juge bi répondre ko ndax ñëpp xam nañ ne mbir mi lañ ci war a wax wax nañ ko ci kenn d'accordul ak li nga xam ne ni moom la gouvernement bi teg pour faagaagal Ousmane Sonko ak ay droits am c'est la raison pour laquelle la dernière énergie lii nga xam ne moo xew ce matin dafa nekk lu nga xam ne nii vraiment day yàq deru Sénégal day tilimal démocratie Sénégal ba pare di wane benn image bu nga xam ne nii Sénégal kenn mosu ko foon xam ci lu mel noonu loolu moo tax ñu war a taxaw jaamaarloog li nga xam ne nii moo am day yàqal réew mi yàqal Sénégal. mais de façon xam nga depuis le départ en ce qui concerne euh, l' parlementaire gis nga taxawaay bi nga xam ne nii moom la ci grand parti parce que dès le départ suñu wax na suñu ay député. ñu wote contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko mais également suñu jeunes yi daje nañu ak jeune Pastef yi def conférence de presse annoncé toute perspective de lutte bi nga xam ne nii lépp loo xam ne nii day fagagal démocratie bi ñoom ñu mën ci ànd ak ñoom tey jii li nga xam ne am na rafetlu wuñ ko ñaawlu nañ ko au niveau de l'opposition jël nañ initiative concerté wu ak suñu naataango yi bu neexee yàlla fii ak ay waxtu lépp loo xam ne nii situation moom laaj daañu ko taxaw def ko pour défendre Ousmane Sonko mais au-delà de Ousmane Sonko défendre les libertés et la démocratie dans notre